wasalaatu wasalaamu fi tasaarufil awaani min zawaati zaati tatra nahwataha ma kafaani suma alin wa sihaabin saaramu waslul qawaani ahlan bi is humillah ahlan bi is unzila mu faqaman mu bajala at faqa kulu rusli ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa di ndokkeel képp kuy mindaafoon rek ci weer wi nga xamante ne mooy weer bu màgg bu tedd bi di weeru juddug suñu sang bi te mooy sang-sang mindaafoon yépp bàyyi di ko ndokkeel bu baax naan ko ahlan bi shahri mawlidi zakarana bil maxtadi <clears throat> asli usuli saydi xabibinal mubajjali kan la mu ne xat kaana xayral mursali qablal wujudi awali walam yakun min jëndali li asminal mu arsali bàyyi di ko jàngal ne lam yadri xayral xalqi fi wa wal si siwal ilaahil xaqi min malakin aw mursali waaye dane ahlan bi shahri mawlidi ñu ngi leen ndokkeel ci weeru yonent bi weeru juddu yonent bi yonent boobu nga xam ne zakarana dañuy fàttali bil maxtadi suñu berso bi mindaa foon yëpp ki nga xamante ne mooy seen berso mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu taxoon yonent bi ak am day jomb comme niñ ko faralee di wax chaque jour waaye dafa wax ne bu taxoon yonent bi nga xamante ne dikkee nañu ko loolu nabi yu atayta maa xuliqat samsun wala xamar aw asbun fi naas tax yonent bi ñu yàlla nu ko yàlla du bind jant bind weer te suñ maam aadama sax du ko bind kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallam dayo boobu mu am nag ci jëm yàlla ji loolu tax yàlla di ko tagg banaan annabiyu bil muminina min anfusihim yoon yàlla Muhammad moo gën a yeey ñi ko bëgg ci seen bopp loolu nag yaakaar naa war nañ ci xoolaat suñu bopp bu baax ki nga xamante ne moo ñu gën a yeey suñu bopp wax dëgg yàlla am damay faral di wax toujours mu du yeey si ñun moom ñi gas ba mu xóot ñu sul ko <coughs> boo ko defee ñun ñuy dund loolu xel waru ko mën a nangu ki la gën a yeey sa bopp nag moo la gën a yeey ci boo xoolee li ngay gis moo la ci gën a yeey soo déggee li nga dégg noonu moo ci gën a yeey boo tànqee ndox naan ndox moom nga naan moo la ci gën a yeey waaye kazalika boo lekkee moo la gën a yee ci tibb nga lekk kooku nag moom daa iman day teew te du mos a faddu toujours rek mi ngi ànd ñun comme ni ko yàlla di waxee ci alxuraan naan wax la mu anna fiikum rasulullahi nangeen xam ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi seen biir jàng ne nag tuuti dégg nañ gars yi bu ñu koy wax ñu ne loolu saw sababu nusulu aay bi <coughs> mooy saaba yi dañoo toog ak yonent bi waaye ñu xaw a toog toog bu xaw a manqué respect tuuti yàlla dina informé na leen xam leen ne yonent baa ngi seen biir pour que ñu mën a corriger seen bopp toog toog bu ak di wax wax boo xamante ne bu ànd ak adab la waaye bu dee loolu la. day ndeysaan day mel ni kon Alxuraan day primé wax man day primé waaye day mel ni kon parce que comme que yonent bi nekkatu fi saaba yi nekkatu fi kon àtte boobu mënatu la nekk luy continuer kon day mel ni aaya bi normalement diire de validité jeex na parce que yonent bi da doon waxaat ci benn jamono boo xamante ne dafa toogoon ak saabam yi jamono boobu wees na kon aaya bi dafa war a wees te bàyyi dañuy jàngale Alxuraan pour ñëpp la. pour fépp la ba faw la pour ñëpp la mooy maag yow ci leen bokk ba fépp pour fépp la mooy fii ñu toog nii alxuraan dafay war a daw mooy aay bi dafa war a daw fii ba faw la mooy ba léegi nii kon bu ñu bëggee jox sens aay bi dëggantaan ci sababu nusul aay bi toujours ñun dañuy faral di wax ne sababu bi mooy nit ñi informé wu information boo xam ne ci yàlla jóge ko kon yàlla bu wax ne wax la mu na ngeen xam ne ana fiikum rasulullah mooy ñun ñii neen xam ne yónni baa ngi suñu biir kon yónni boobu mooy kan ak mooy lan ba mu moom avant mu fiy nekk avant muy feeñ ci masar bi ñu ko xamee juddoo ci diggante Aminatu euh, bintu Wahab waaye ci diggante Abdullahi lu jiitu loolu yonent bi nekkoon na ba demee ba génn fi tamit mi ngi des ba tey mi ngi fi ba tey bàyyi di ko jàngal ne rasulun la mina mawla wa aadamu lam yakun waaye wa yebxaa rasulan daayiman wa muhazzama yontu la bu bàyyi ko ci borom bi fekk aadama amagut waaye dafiy des ba faaw di yonant nekkuñu màggal kon lam mooy dëgg-dëgg yonant boobu sallallahu alayhi wa yonant boobu nag aji teew la ak ñun moo tax bàyyi di wax ne wa laazimu xudura wa sukuna kazaka xalwatu tuxiinu xiina bàyyi bu ne wa laazimu xudura na nga di teew wa sukuna kazalika del dal waaye nag mu ne kazaka xalwatu tamit ngay wéet xiinu xiina mu dimbale la ay saa ki teew du yow ki teew mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu moo tax bàyyi di tagg yonent bi ne jaaltu rajaa yi fi huwa lazi haadirun maa ngi jël sama yaakaar yëpp def ko ci nga xamante moo teew ak man fële mu ne wa tiitee batun haazaka badun wa xandaqun wa zaudun tulsika badwan wa haadira fa barhamu yaati zahiran mutawasilan wa mustasfian wa arju ko fi xabri xaadira nee yow yonent bi sallallahu alayhi maa ngi lay yaakaar nga teew ci xabru bi ay salaam kon ala kulli xaalin teew xam-xam la ki teew nag mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo da ne wa laazimu xudura na ngeen taqoo di teew waaye wa sukuna ki nga xamante ne moo war a dal kooku moom mooy yaram kon ki teew mooy ruux te ruuxu mindaafoon yëpp mi ngi tëbboo ci ruuxu Seydina Muhammad Cheikh Tidiane Mawlana léeb léeb bu rafet mu ne fa innal asjaara fil aalami tastamidu min ammaay mboolem garab goo xamante ne mi ngi ci alam bi mi ngi tëbboo ndox lawlal maa bu taxuloo ndox mu ne ñoom ñëpp dañuy dee tax doon ndox rek mu ne bépp garab day dee mu ne haza maana muhammad fil alam mu loolu mooy maana ruuxu yonent yàlla muhammad saa sallam ci alam bi maanaam bu tax doon yonent yàlla muhammad saa sallam ñëppay dee masalan dama koy faral di joxe exemple ci courant bi wala courant bi dafa jóge ko ci haute tension bi tension boobu nag <clears throat> état brut la moom soo ko laajee rek da lay effacé mm. waaye dana ñëw ci ba ci benn niveau boo xamante ne mooy ci nu ñu koy waxeeti ci contour bi foofu lañ koy branché moom moom buy ñëw dana ñëw ak deux cent vingt waaye loolu mooy entrée bi sortie bi nag moom bu ñëwee. 110 yi nga xamante moom la appareil bi attan moom lay génne transfo bi day am cent 220 waaye cent 110 mooy sortie bi appareil yi ci kër gi nag moom lu ñu attan 110 lañu attan waaye courant bi mooy dundal appareil bi ci kër gi yëpp kon alaa kulli haal maanaam yonent yàlla xam loolu la ci kawnu bi moo tax bàyyi day jàngale yéen yonent bi wa zalika ruuxul kawni kawnu bii ruu gi ci nekk di ko dundal mu yonte yàlla Muhammad sallam moo tax nit ki boo seetloo courant bi boo ci bëggee branché bu fekkoon ne benn kii rek la am mooy trou yooyu ngay branché prise bi doo mën a am courant waaye bu fekkee tamit kazalika yow prise bi nga yor pour branché ko ci euh, euh, prise bi boo ko jëlee bu fekkoon ne dafa am ñaari tànk benn bu demee rek doo am courant waaye àdduna baa ngi nii ñun ñëpp a ngi ci àdduna bi. ku nekk dafa foog ne moom mu ngi dund alors que yow dundoo dafa am kuy dund yow ki dundam gi ci lay continuer di dund moo tax yàlla tamit tubaab bi créé wuñ dara dañuy dañuy dañuy dañuy xool ci yàlla bind rek c'est Dieu qui est créateur mais l'homme compose par la création de Dieu maanaam nit ki day day xool ci li yàlla amal rek moom mu compose si yàlla tamit dafa jël yoon yàlla moo xam ko ci jaww ji masalan oxygène bi nga xamante ñu ngi koy nooy si jaww ji képp koo xamante ne toog rek te jëloo ci oxygène bi cinq minutes dangay ngay dee kon ndekete yow nekkul ne yaay dund te boo dee mënuñu wax ne lii moo dañ ci yow maanaam sa bakkan yaa ngi fi sa bët yaa ngi fi hmm? sa cër yëpp a ngi fi waaye dee nga lu tax maanaam dañoo coupé lien bi nga am ak jaww ji jaww ji nag dafa am oxygène bu ci daw <laughs> loolu nag kan la sallallahu alayhi wa sallam moo mu ne fa zalika ruul kaw ni siru muhammadin te comme ni nga amee ñaari kii ji prise bi ni mu amee ñaari turu mm. yow nu nga am ñaari turu da nga am plus ak moyen ji nga mooy yaa ngi dugal mm. moyen yaa ngi génne même borne kii bi courant bi tamit loolu am borne plus ak moyen muy positif ak négatif moo tax yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa mënul ñàkk ci alam bi demul fen du mos a dee moo tax bàyyi nag moom chaque année ndeysaan muy feetee juddam gi ndaxte judd yëpp ñu ko laaf ci juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi day wax ne lawlal habibu murtada maa nii la maza yurtada bu tootoon soppi buñ gërëm bi kenn mënul am lenn luñ gërëm mm-hmm. maanaam xataa juddu gi nga am mëntu na nekk lu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo judd yonent boobu nag ci weeram la nekk bàyyi di ko jàngale jàngale yu set pour ñu gën ko xam parce que alxuraan moo jàngale loolu alxuraan moo wax ne wa kullun naqussu alayka min anbaa'i rusli maa nusabitu bi fu'aadaka wa jaa'aka fi haazihil haqq wa maw'izatan wa zikraa lil mu'miniin yàlla wane yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam deneen la nettali xisa yi yonent yi la jiitu woon pour mu dolli la ngëm yàlla bàyyi leen yonent bi ni baaxee nag moom <coughs> bu ñu nettalee ay baax baaxam mën nañu yokk mbëggeel te ku bëgg yonent bi danga nga <coughs> bëggeel googu nekk suñu xol bañ gént ko gis ko te ku gis yonent bi sallallahu danga nga texe léegi nag lii moom mooy solo ci gàmmu kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci weer wi ñi koy def nag ci bu weer wi teroo ba am fukki fan ak ñaar ci guddeelu fukki fan ak ñaar bàyyi di jàngale ne fi yow mi mawlidi ismada yaa bun xadadan xad anal mustafa akrim bisa raxsi nee na ci bésab bidom bi ci bésab ñaareel boog kañ mu ne ismada bañ demee ba nga xamante ne romb na yaa ak ba <coughs> li yaa ak ba yaa xaraf la baa xaraf la waaye baay mi ngi ci laa laa làq mbóot yu bari yi nga bàyyi day làq ci ci yi mbóot yu bari bokk na nee na ah laa sibha waaw dafa wax ne hmm? foo siinun xabla raa laa soxla noonu la laa sibha li Moustapha du boobu commencé wu noonu nag dafa wax ne daal mu ne foo siinun xabla raa yi yonent yàlla nekkoon na siin lu njëkk muy nekk raa luy siin gi nga xamante moom la njëkk ne ak la mooy raa gi njëkk ne loolu xañ na xam-xam la war a doon mooy yonent bi laata muy nekk nit bi ñu xam ni nekkoon na sirru gannaaw bu mu nekkee sirru nag ci la door a nekk ruux waaye nag ba day door a foofu rek dafa yem foofu waaye continué waaye nag bi mu nekkee ruux bi mu nekkee raa nekk na jiim nekk na jiim bi maanaam gis waaye bi mu nekkee jiim mujj na nekk xoof bi maanaam xalbu waaye mujj na nekk tamit nuun mooy nafs moo tax yàlla di ko jàng ci alxuraan naan nuun wal xalam nuun mooy yónni yàlla yi bu nekk rek dafa am jàngale ci yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax xaraf yooyu ngay dégg bàyyi di si nëbbu nga wane yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bisam ñaareem bi bi mu rombee rek yaa ak baa yaa ak baa moo tax sang Barhaamu Njaay ñu gën bu baax yàlla na yàlla fayal ñu ko mu ne la mooy yaa ak luy baa mu ne gars yi kanaa néew na ne yaa mooy diis yaa chiffre dix la tombek mu ne baal ñu ne mooy deux mu ne dix plus deux égale douze kon la mooy fi yow mi is ne nii mu ne yow ma axat kan la bés bu njëkk bi mu ne yonent yàlla Muhammad moo jóge ko zaatu buruz tajil zaat awlu abidin moom moo njëkk feeñ ci bés bu njëkk bi mu ne bés bu njëkk boobu mooy xàqatu Muhammad it bésam ñaareel bi mooy kan mooy xàqatu Ahmad it ba mu rombee nag gannaaw Muhammad ak Ahmad yi xilaafatu gannaaw yoon di sewtu yaan baay léegi tax nga dégg baay naan isa saara xayru naas surtout waraaw bu yoon bi doxee ma topp ci ginnaawam sang mën a déedéet def la nang nag ci li baay di jàngale ah, pay bi de bu ko neex rek si laamin bu ko neex mu waxee baay bu ko neexee mu wax ci laamin yonent bi bu ko waxee bu ko neexee mu wax ci laamin Cheikh Tidiane ñu ne ko lu tax mu ne parce que baay nee na foo waslu habibullah yul faa bi waslu yaa man maa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm. jokkoo bi mënul am lu nga jokkoo man mm. nga ne ko Cheikh Tidiane mu ne yaa man yuru Tidiane ay musaafatan fi bayti baraham tul fiha mukaafatan ma aqu fanadan wala mubalagatan mm. wa in arata fasalniha muwajahatan bi maqbudi cheikhi miskunti musaafatan baa ne yow mi bëgg Cheikh Tidiane wax ma nag nga naan ay Seydina Cheikh rek Seydina Cheikh radiyallahu anhu fa tabarakallahu ahsana xaaliqin bàyyi mu ne waxuma loolu de bu dee loolu nga ci bëgg demal fu la neex waaye li ma bëgg mooy nga joxante moom loxo nii ay musaawatan joxante moom loxo nii mu ne lool moom fi bayti baraham loolu nekk bàyyi la am mu ne loolu soo ko bëggee foog nga ñëw ci bàyyi tul fi amu kaafatan loolu moom lépp foofu la am mm. nga ne ko bàyyi yaa ngi wax comme ni góor ñi doon waxee de da ngay xaal mu ne wala mu àqu fana dan wala mu baala xalaat bi bantuwuma tamit mm. xaaluma te nekkuma di wax ay waxu mboosoor waaye ne arata li ma wax soo ko bëggee fësal ni yaa laaj ma ko mu wajee tan boo ma ko wanee rek ma ja ma boo jàkkaarloo man laaj ma ko rek ma wan la ko ba nga gis ko mu ne sama preuve sax man dama lay jox mu ne bi max mi di cheikh tenq tenk sëriñ bi miskun dafa amoon parfum bu ci xeeñ tii musaawaata mu ne soo ma joxee loxo rek mu xeeñ la sang ma ne parfum boobu nag du buy xeeñ si bakkan waaye si nopp lay dugg jàll dem si xool parfum boobu bàyyi mi koy dóor mu ne képp ku sojur rek mi ngi lay xeeñ kon isa saara xayru naas bu yónni yàlla moo doxee ci xaqat Muhammad dox ci Ahmad it maam ci maqaama Cheikh Tidiane lay waxee waaye nag bu Muhammad yow man bis bu wàcc mu ne guddi mooy kan kuy na kuy bës kooku mooy Baay na kon ismada bu rombee rek Baay Ñas mooy ñëw mu loolu nag mooy yaa baa boo demee ci bi am na ñeent bàyyi na huwa sifatun wa ismun wa zaatun wa xaybuha Seex am na ñeent bàyyi ne mooy xadmul sultaanu miftaawul wala boog baabul wilaayati miftaawul wilaayaati Seex Tijaani am ñeentam boo demee si bàyyi am na ñent mu ne axsamtu bi tuuri anna cheikha yumilu nii man daka an wu nee ni kal xubaaraat lan la mu ne xalifatullaahi ramzul kawni ruuxu jameel kaw xalqi wa huwa aslun li wujudaat bàyyi tamit am na ñeent yonent bi ñeent Cheikh Tidiane ñeent bàyyi ñeent muy xaqaayiq nubuwa xaqaayiq wilaaya xaqaayiq xilaafa léegi na trois fois quatre égal douze moo tax yonent bi bu juddoo da day bàyyi ba ba weeru teru <laughs> fukki fan yu njëkk ya nu ñu ñeent fan yu njëkk ya ku ko moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki fan a digg yooyu ah ñeent fan a digg yooyu ku ko moom Cheikh Ahmad Tidiane yu mujjee ku ko moom bàyyi yoon du dooru judd moo tax bàyyi mu ne mawlidun xayran xuqulu moo tax jigéen bàyyi bàyyi moo raw ci yonent bi saa salaam parce que yonent bi moom njuumalu doy waar la bul ma wax na dama luubu nag Alxuraan ma ko wax isa jaatil taamatul ko salaam parce que nga juddu li day cippeelu xott sa faaru yaa rek cippeelu jonkan xool asamaan wax la nga wax ñëw ak ñaari bët yu ñu tës sang yaa ñu ne ko ñaari bët yu ñu tës ngal mooy lan mu ne bàyyi nee na ana ay na rey na euh, ramda ana ay na ramda man sama ñaari bët yi dafa wànnentu wa wisaalu maanaam man sama sama sama tuufaay bi may faj tës bi may faj mooy ma jokkoo yontu bi saa ay na lii min kum bi haasal ki haali kon ana kan moo yore tisgal bi may faj bàyyi nee na sama taalibe yi ku ci yor tisgal bi may faj ina ibrahima ah mabnu abdul ilahi taaliban minka fawzuhu bil wisaali bàyyi nee na maa ngi sàkku man sama taxee ci jokkoolu ak jokkoo jokkoo googu nag nee ki may jokkoog mooy ki may faj léegi nag kon sang ñu ne ko fan lañ tisgalee yonent bi mu ne si kër Mawlana Cheikh Ibrahim allahu akbar aka jox bàyyi gëdd mu ne yonent bi dafa ñëwaale ak dugg néeg góor ñoo ko fan mooy lool mu ne lool jalaal la ku nekk xam ne ne jongo jalaal la mu ne ismu jalaal kii nga mooy Cheikh Ahmad Tidiane waaye bi mu ñëwee nag dañoo dagg cordon ombilicalam mooy lutt bi dañ ko dagg xam nga liir bi bi mu nekkee ci biir yaay bi foofu zaatu la zaatu zaatu xam la tëjëli fekk yàlla dafa ko benn tëjëli fekk boobu laa sifatan wala isman wala xilaafatan wala ayna wala kayfa <clears throat> maqaama saqi wal maqi wa dakki wa fanaay fanaa walaysa fi hada ila mosu xaq bil xaq yoon bi mu nekkee foofu ci biir yaay bi nag moo cordon ombilical bi dañoo bennoo moo yaay dañoo bennoo ci cordon ombilical bi mi ngi mel ni bi ak suuj bi loola nag ndeysaan mi ngi nekk ci nubuwa Seydina Muhammad parce que yonent bi moom mooy xàqat mahamadiyatu waaye biir ba mu nekkoon ci biiru yaayam foofu mooy zaatu xabla tajali te mooy jëmmi yàlla ji nga fa foofu nga xamante ne tur yeeg melo yeeg jëmu ji amul mi mel ni nen ak cuuc ni ñuy bennooyee leen waaye nag liir bu juddoo mooy xàqat moom bi bu juddoo nen bi bu génnee cuuc bi da gis nen bi day day effacé wu cuuc bu continuer loolu tax kon dañuy dagg lu tubi ala kulli xaalin kon ala kulli xaalin sang bi moom du bàyyi dara muy muy muy traîner lépp lu ñu wax ci yonent bi rek dafa bokk ci maqaama yonent bi sallallahu alayhi bi loo dégg ñu waxaale ko ci juddoom gi rek bokk na ci ay maqaamam ala kulli ñu ngi sant yàlla bu baax si juddu googu nga xamante ne bàyyi daf fi jàngale mu ne guddi gu juddu la goo xam ne gu gëlëmal xel la parce que li tax mu gëlëmal xel waa ji feeñ na bañ gis ko fekk moom juddu gi pareegut ma ngay dem rek ma ngay dem te waroon na jaaxal lu tax sax rek ñii màggal judd yonent bi comme ren la war a judd moo tax Baay dafa toog ba ci àgg mu ne bi mawlit yi ci juddug yonent bi saa salaam ura ji ci laa yaakaaree ne la am far waa bàyyi lan la léegi xanaa yonent bi juddoogut xanaa juddoogut nee na bi mawlit yi ci juddoom gi ura ji ci laa yaakaaree ne la Fatima am fat même ci juddu googu wa asrabu maa asri bal miyaha bàyyi sax ci laa yaakaaree naan ndox yi bàyyi ndox yëpp ci laa koy naane waaw mu ne nag biir mawlidi uraji kulla xayri ci juddoom gi laa yaakaare bépp yiw bépp yiw ci juddoom gi laa ko yaakaaree kon juddu yonent gi ndax benn affaire la nii wala maqaama la boo xam ne buñ war a xam la loolu la bàyyi di jàng naa ahlan bi is xumila ñu ngi koy ndokkeel fa nga xamante ne fa leen ko ëmbee yoon fi nga ko zaatu leen ko xam zaatu boobu ci la yàlla di jàngalee naan walaaw axrajakum min butuni ummaatikum laa taxlamuna shay'an kanaa si lu wax yooyu alxuraan ndeysaan alxuraan neex na alxuraan wér na moo tax xam yàlla te xamoo alxuraan yaa ngi nax sa bopp de parce que yàlla mi nga xam moo wax alquran yàlla na koo xam war nga xam ay waxam walaaw yàlla axrajakum moo leen génnee min butuuni umwaatikum ci seen biiru yaay fekk boobu laa ta'lamuuna an xamu leen dara xam nga ne ba nga nekkee zaatu jeex tàkk ci yàlla xamoo dara asamaan nga ne amut suuf amut jaww amut lu ñu wax rek nga ne amut kon xamoo dara laa ta'lamuuna shay'an wa ja'ala lakumu sam'a léegi ñu dafa leen dégg wal absaara ñu dafa leen ay gis wal afida ñu dafa leen tamit ay dégg ay ay xol bokk ay xol laalakum xalilan maa tashkuruun lu néew ci yéen ñooy sant laalakum tashkuruun la laalakum tashkuruun ndax ngeen mën a sant yàlla ndax ngeen mën a sant yàlla xoolal Alxuraan ci moom it ci ni mu waxee dafa niroog ni Baye waxee Baye wax ne ahlan bi ismuhum la ñaata ahlan bi unzila mu faqaman mu bajjala xat faqa kullu yàlla tamit ñëw ne walaaw axrajakum min laa taxlamuuna shay'an wa jaala lakumul wal wa laalakum waaw xam nga ne ñi waxantu wuñ de xam nga ñaar ñi waxan nii dé déenti neen de ñii déggoo neen de ñii xam ne li ñuy wax de kon moo tax fii nga toog naan walaaw axrajakum min burin burin umu kaa de foofu mooy zaatu mooy ahut mooy siru yonente bi saa salaam yonente bi ju doogul foofu laa tax mun a cheyan wa jaan lak mu mu dafa leen dégg sang mu ne attention nen taxaw foofu arrêt la bu bi nee na arrêt la ni ko gars yi firee bu ñu ko firee noonu suñ ko firee noonu rek ndeysaan kon yàlla dana am échec te mu lu jomb la ci yàlla muy échec mu ne jomb na ci yàlla muy échec te bu ñu ko firee noonu rek échec dana am parce que am na kuy juddu te du du mën a dégg day tëx te yàlla nee na ku ma génne sa biir sa biir yaay rek defal naa la dégg wa jaala lakum lakum gi ñëpp dugg nañ ci. wala na ku juddu am na koo xam ne juddu na xolam doxut. léegi kon sang bi nee naka lañ ko mën a firee ba nga xamante ne dina méngoog li yàlla wax mu ne kon wa jaala lakum sama mooy ma defal leen ay ruux ku judd am nga ruux nga ne ku judd am nga ruux ma mu ne ruux mooy xàqat mooma déetu foofu mooy xadratu laahut wa abu saara ma defal leen ay gis nee na nekkul ne gis bii lay wax parce que yaram la gis mu ne ku judd am nga yaram te foofu mooy jabaroon Cheikh Amadou Tidiane Cheikh Tidiane mooy yaram est-ce xam ne ne Cheikh Tidiane yaram Cheikh moom ci boppam nee na mm. sëtu fil gis mi man feeñ naa ci yaram fi kas fi wa fi kitmaan yi ci feeñ ak ci nëbbu fa lii xafaawun wali sirun wali alaanun man nag léeg ma wuññeeku ba mu feeñ léeg ma nëbbu léeg ma nëbbu ma feeñ mu ne la maa xalas naa fa aw xaala naa fawqamaa naa joo munaa wa mus jalaa tajalla fi majalina fa man law mauna xataa yu jalina ndeysaan foofu nag bàyyi tontu na ko bàyyi ne ko laqad lama nuurul muhit li kaw naa kon gars yi diggante fi kulli makaani nag man uzilu wa man azu xifa nusqa min ayni maarifi ahmada yaa wayha man uzilu wa yaa wayha man aza kon yooyu yeneen wax la mm. moo tax gis mu boobu ñuy wax moom mooy Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan yaram moo tax yàlla bu ne inna sama mooy yonent yàlla Muhammad sallam di ruuxu di ruuxu mi daal foon yëpp képp ko am ruuxu yonent yàlla moo la ko may te ruuxu mooy nekk ci biir yaram di dégg ji nga booy dégg ne ko yaram bay dégg ruuxu gi mooy dégg moo tax nit ki bu dee nopp baa nga waaye doo dégg am na ko xam ne déggul sax mais tëx tëx na te yàlla dafa wax ne su mun bug mun xom yun foofu laa yàlla indi tëx ak gumba ak lu fee mu indi gis dégg ak kaddu allahu akbar léegi kon yàlla nee na kon képp ku génn ku juddu naa may gis sang yaa mu ne mooy yaram parce que yaram lañ gis mooy nag ak ay xol sang ne lii mu munaas ba dégg gis xol dégg ru yaram xol waaye dégg gis xol ne loolu munaas dégg gis xol dé da nga yaram xol kuy ruux gi kuy yaram bi kuy xol bi kon képp ku am yàlla ci lii la amale moo tax suñu gars yi duñ ko ay caaxaan de gars nekkuñ benn waaye boo xam ne bu la neexee gëm bu la neexee bañ gëm de <laughs> yonent yàlla moom salaam gëm par force Cheikh Tidiane gëm par force xataa Baye Niass gëm par parce que ñii ñoom am asal ku lu ñoo am moo asal ku si nekk rek jaamu yàlla bu baax nga ku bëgg yàlla nga ku bëgg yonent bi nga ku bëgg Cheikh Tidiane ku bëgg Baye waaye nag waaye nag ñii ñoom ñoom ci ñoom la war bëggee nag xubbu si walla laa yaraw la abdan min ibadi li man li anna man ahaba cheyan saara abdan law wa ibadu li xayri kufrun wala yarda li ibadi yi kufru ndeysaan bàyyi na xubbu si walla bëgg lu dul yàlla laa yardaawu laahu yàlla du ko nangul li abdin ñeel ab jaam min ibadi si jaamam yi benn jaam la ko yàlla du nangu li anna man ahaba cheyan ndax ku bëgg mbir soxara da ngay mujj abdan la woo di jaamu mbir ma wa ibadatu li xëyri bëgg jaamu keneen ku yàlla nag kufrun loolu kéefër la te yàlla na du gërëm jaamam boo xamante ne da koy weddi kon ala kulli haalin bu yàlla waxee ne wa jaala lakumu samha wal absaara waaye nag wa afidata ay xol mooy bàyyi ñes waaye nag laalakum fi yoon bi juddoo foofu lañ ko mën a sante li yëpp yonent bi yonent bi ci juróomeelu maqaam bi lay juddu yonent bi ci juróomeelu maqaam bi juddu moo tax bàyyi tamit loolu la wax bil xamiisi yasiiru hmm? wa'lamu annamaa qadimtum min shay'in xumusu ji nga de Alxuraan nee na bu ngeen demee ci màng gi ba ngeen dajale ba bëri boo ngeen ko séddoo yàlla moo moom juróomeel ba waaye bàyyi ne laqad jaana al Mustafa rasulan hmm? minna mu ne koo xamante ne raufun rahim waaye bil xamisi ji siiru nee moom ci juróomeel bi lay dox xataa yund bu demaan xare ànd ak saaba yi di lay xamante yund bi gëree la moom góor la dafa am lu ñuy wax xudumul jaysi xudumul jaysi mooy quartier bi mooy armée bi dañ ko doon def cinq parties ñii nekk ci gannaaw ñooy nekk xudumul jeesi waaye am ñuy wax maymanul jeesi ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci côté ndajoor bi partie ndajoor maanaam plan de guerre yonent bi la woon salaa salaam waaye ba tey mu am maysarul jeesi ñu nekkee côté gauche armée bi quartier bi dafa am ñoo xam ne ñoo nekkee gauche am ñuy wax xalbul jëy si ndeysaan xalbu mooy ñeenteelu parti bi moo tax bàyyi moom moom mooy xalbu mooy ñeenteelu parti bi waaye boo ne siru ne ruuxu ne gis bu koy wax xalbu kuy siru du yàlla ruuxu kan yonent yàlla moom gis mu yan xalbu mooy kan moo tax bàyyi mooy xalbul jëy si léegi nag mu na parti boobu mooy bi nekk ci kanam nag mooy xamisul mooy juróomeelu quartier bi mm-hmm. yonent yàlla Muhammad foofu la daan nekk moo tax bàyyi mu ne bil xamis yasiru ci juróomeel bi lay dox moo tax ahut ndeysaan foofu mooy xudumul jëysi bu ko defee nga ne laahut mooy may mënatul jabaroot hmm. may saratul jëysi malakoot mooy xalbul jëysi waaye naasoot nag mooy xamisul jëysi foofu la yoon nekk saa salaam yàlla bi indi xarafu juróom yi hmm. bi njëkk a wàcc alquran ne kaaf ha yaa ayn saad beneen ñëwaatut bu ko bu ko sut bépp bu ñëwaat rek fii leen ko daggee waaw bu ñeent ci juróom leen ko dagge ñett ci juróom leen ko daggee waaye ñaar ci juróom leen ko daggee benn ci juróom leen ko daggee sax yaa na xarafu juróom juróom juróom niki ka ha yaa ayn saad nee loolu mooy xadaraatu xaq xadaratu maanaam xarafu ñeenti ñeent comme alif lam mim loolu moom mooy xaqaayiq xaraf ñett ñett comme alif mim alif lam mu ne kooku mooy mazahir comme noonu xaraf ñaar ñaar taha yasin amim nee loolu mooy xawalim waaye xaraf benn benn nee kooku mooy zaatu ñooy jëm yàlla ji ala kulli haal ñu ngi sant yàlla bu baax ci maqaama yooyu nga xam ne yëpp ay maqaama yonent bi la ñi ngi bëgg ñi ngi am fierté ci ndeysaan di waajal juddu yonent salaam di ko waxtaanee parce que bàyyi dee na serum bi xat ataana Moustapha alanan xat xàq tarjimu fi kulli xirtaasi bàyyi nee na weer wi ci lañ yonent yàlla Muhammad jikkaloon te ku kawe nee na yeeri na ñi bind ci bépp këyit boo xam ne dafa weer sa turam këyit bu këyit bu nag mooy ku dem ba fannaaw jeex takk ci yàlla wasal abdu fanin laysa fii baqiyatun wa ma huwa ila mustafa lil munaqili wa ma huwa ila ahmadun wa muhammad wa ma huwa ila ma wara qawili ba ne jàmm bi jeex ba dara desu moom kooku du ko dul yonent bi salaam kooku du ko dul Cheikh Tiyaan kooku du ku dul ki nekk ci ginnaaw xel yi te ki nekk ci ginnaaw xel yi kooku moom mooy Baay Ñas Baay xel du ko laal mu ngi ci ginnaaw xel moom ala kulli haalin kon boo demee ba jeex tàkk ci yàlla ba sa dara nekkul fee léegi nag dañuy yéene ci ñu bind ci yow yonent yàlla Muhammad mooy nga wàcc ci pays yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci weer woowu ñu ngi ci góorlu bu baax ngir may ci yàlla di may ñun ñu am ci suñu wàll ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xamante yàlla boolewuñu si ñi koy weddi ñuy weddi gàmm ñi def moo tax bàyyi moom góor la. gaa yi dañuy dafa gàmmu gaa yi di ko weddi mu gàmmuwaat bàyyi <laughs> bàyyi gaynde la moom ki muy li muy def da ko xam dafa def gaa wax mu seppale xam nga seppale mu dolli ñeex <laughs> ñu ne ko bàyyi loolu mooy la mu ne ndeysaan yàlla dafa wax ne wa is qul naa lil malaykati sujudu li aadama fa sajudu ila iblis aba wastakbara wa kaana mina kafirin yàlla dafa toog ne yéen sama gaay yàgg ngeen fi baax ngeen doon ngeen jaamu ah gërëm naa leen léegi daal li may mën a fay mooy sujjóotal leen aadama malaaka yi tegu ci baat ñi sujjóot ba mu des iblis malaaka yi nag bi ñu sujjóotee ndeysaan ba siggi gis na iblis su sujjóotut yàlla rekki ko ñoom nañu sant yàlla sujjóot ñaareel yoon ñu sujjóot ñaari yoon pour sant yàlla loolu moo war a julli mu am ñaari sujjóot yooyu ngay sujjóot boo sujjóotee siggi sujjóotaat Baye sang Ndiaye nag nee na ñu nit ngi sant yàlla bu baax Baye Niass dafa gàmmu ba pare dégg gaa yi di inkaar gàmmu mu gàmmuwaat pour sant yàlla kon alaa kulli ñu sant yàlla bu baax ci loolu di wax ne gàmmu daal xéewal la ñëw yónni yàlla Muhammad xéewal la si ñun te xéewal dañ koy waxtaanee fa amaa bi ni'mati rabbika fa hadis yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen waxtaanee nee na da leen ma waxtaane yonent bi xam ne mooy xewel gi te nee na te addusu bi ni'matillahi shukurun wa tarkuha kufrun di waxtaane xewel yàlla yi te mooy man man maay xewel bi gën a mag ci xewel yi loolu sant yàlla la ñaag koo waxtaane weddi yàlla la te yàlla nañu yàlla musal weddi yàlla ndaxte yàlla du jégal jaam bu koy weddi waaxe dama naa jërëjëfe Mawlana Cheikh Rahim